kon na sa sedd li laa leen a wax fan laa dama ci ban tànk ci ban loxo ban tànk ban tànk moo damm ban ban ci ban ban tànk moo damm ban fan ban moo damm ban moo damm xam nga ni maa ngi kon na sa xol sedd li a wax fan laa dama ci ban tànk ci ban loxo ban tànk ban tànk moo damm ban ci ban ban ban tànk moo damm ban fan ban moo damm ban moo damm xam nga ni maa ngi en grande kon na sa xol sedd ci laa leen bëggoon a wax.